dal leen a jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyandoo inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ci yàlla la ñu jóge te yàlla tamit ca la dellu yéen kaay yi nga xam ne nag moom la ñu xëyee daal di xëyee lépp loo xam ne nag jëm na ci faatu ki nga xam ne moo di Ahmed Dansokho yéen kaay moom mi nga xam ne kay moo jiite woon PIT génn na àdduna ñu xamal ne kay démb kay àjjuma la ju metti ci réewum Sénégal démb kay la Ahmed Dansokho daal di génn àdduna ca jamono jooje yem na moo ñu daal Sénégal kay jamono ji metti dëgg la def enquête yéen kay bi du xamal ne kay moo ñàkk koo xam ne yàgg naa liggéey réewam yéen kaay bi du xamal ne démb kay la xibaar bi daanu moom Mohamed Dansokho moomee lu toll ci juróom-ñett fukki ak ñaar yéenekaay bi duñu xamal ne ma nga faatoo ci këram ki nga xam ne nag moo di Amath Dansokho bii yoon nag ñu daal may tàgge keneen koo xam ne nag mooy Amath Dansokho koo xam ne daal xarit laa ko jàppe woon waaye tamit koo xam ne nag jege woon na ma lool waaye nag àdduna ñoo ñàkk de àdduna ñoo ñàkk Amath Dansokho les éco yéenekaay duñu xamal ne moom kay Ahmed Dansokho ni maanaam daal réewum Sénégal yàgg na ko jëriñ waaye tamit daanaka daal mënoon nañ ko wooye am Mandela maanaam koo xam ne mooy Nelson Mandela ci réewum Sénégal ñu daal bàyyi loolee lépp daal wax ci lépp loo xam kay jamono ji kay PDS jafe-jafe yu metti moo fa ñoom Omar Sarr kàddu yi nga xam ne daal yëkkati woon nañ ko nañu ko waxee noonu lañ ko defee yéeni kaay bi dañu xamal gannaaw kay conférence de presse bi nga xam lépp xam ne nag jëm ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñuy jànko det ci parti góor gi Omar Sarr ni ñu xamal ne moom di kaso ba loolee sama loxo ngi biir te kenn mënu koo dindi ca jamono jooje le quotidien duñu xamal ne ñi nga xam ne nag ñoo ànd ak góor gi kàddu yi nga xam ne yëkkati nañ ko dañoo xam ne Omar Sarr na réglé la te dallu ji te bàyyi nag lii nga xam ne daal moom la yëkkati di wax kàddu yoo xam ne amul bopp amul genn ñu daal di koy ndar keppeeg lépp loo xam ne nag jëm na ci blanche bi nga xam ne di amaar yéenikaay bi duñu xamal ni boucle nañ nag lépp loo xam ne nag jëm na ci enquête ba